xasida yi moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne jàng xasida yi moo nu war a dàqal wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala sabi wa salama tasliman ma jóg la géeyal Serigne Touba te sàkku ci barke Cheikh Moustapha ci barke Cheikh ci kattanug yàlla ak njool màkka ak ko dar lay tàmbalee ci mbirum si di lamin baara mooy turandoo xayru xalqulaay sayyidina salaalay la si la si abda sëriñ baara mbokk ñi topp ci sunu site bi nga xam ne moo di Atoub Xam Xam boo ko defee ne la nga waxoon ci ne moo di Mbacke Kajoor duñu saami ñi nga ne moo di nga xam ne moo di euh, a nga xam ne moo di euh, euh, tànk ginnaaw liggéey Serigne Touba saa su nekk rek ca kanam lay jëm mais doon loo xam ne luy jëm ci ginnaaw la kon bu ko defee rek dana ànd ak yéen leen li nga xam ne mooy barab bi ndax kat léegale Serigne Touba moom nii rek la demee saa su nekk rek day jëm sa kanam saa nekk rek day gën a dox saa su nekk rek day gën a jëm ci kanam fi nga xam ne moo ni ngi na ne Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouridina fii la jéblu woon ci nga xam ne moo di Cheikhul Khadim kon dinañ ànd ak yéen rek wana leen waat a baax biir barab bi ak fi nga xam ne moo di Serigne Cheikh euh, Ndigal daan fa ànd ak yéen wana leen waan ko bu baax li nga xam ne moo di liggéey bi kon mbokk ñi nga xam ne moo di Mbacke Kajoor fi nga xam ne moo di ngi gis Bamba ñi topp ci sin sin bi nga xam mo nek atup xam-xam mbokk yi kon da ngeen ni top rek ñu and ak yeen di wané leen liggey bu baaxa baax rek. wa jundulay ña ngay jiinal sëriñ ku dem fa diwan fa pib yalla ñepp nga naan ji lamb de su fi fel samp serigne bara ku la fa diwan fa pib jilam ba leefu fi fel sampu sëriñ baaral ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan jilam ba leefu fi fel sampu sëriñ baaral waa mulku ak malakoot ak kursiyoog jabaroot seen atte benn la ngir siidi lamin baara fadat wa yaayiluhum wadat fa wasas ma yaay luxum xam nan sëriñ baara wasas ma yaay luxum wasan ja yaay luxum ki leen di jox ndigalay siidi lamin baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokk malaayika seenub lim juróom ñetti lañu yu bokk taa wa rasuul ma baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi ma bëggal boppam sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg na la ko def bu yàtte tey ba ëllëg duniyaa waxuraaloo ñeel na sëriñ baara soppe boromam la di

biir waa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jarbaatu Seex Abduloo ndaa mbar ma moo rëy daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jàngul ba sonn ta doon gaaya gagoon ca lawhu mahfuus man yem naa sëriñ baara فكن فيكون لدمي خم خم بكمم بالك فرق القرآن هاكم سرين بار فكن فيكون لدمي خم خم بكمم بولك سيرو القران ما غم سرين بار تالف نتيري ري يويس المسيح تخم كان كيفور دو بنم سرين بار tarif na teeru yu salmasi te xamul kanga nga du xam ni lum serin bar siru maro teg bayan ak takal yi taxaxal ca alimul xaybulal tabe sëriñ bar sëriñ bu la sa cosaan bay weddi lii wax jangal mo na wér bul lum serin bar serigne bu naw sa cosaan bay weddi li mala la wax jàngal mu nawiru bun yaanub sëriñ baara sirub aroot ak bayan ak téere yi taxa neku ba man di ñew di bangeen nekul lu te soxla looy sunu yaakaar tey de fanu jëm Seydina لمن على البيت بك الكل وكلمه بخدمة الميزانة خدمة في عالمنا لو هو بك ولا بما يحب ما بيع هذا اللي أخذيها هذا اللي تعيش يا ربنا يا ربنا يا ربنا baax na si poos góor baax na baax na si poos yi baax na si poos yi loolu mooy yoonu maam Cheikh de xool yaram yàgg fi si doole maam Cheikh

بإخلاق باب النعمة إلهام سبب بكل نسمة وسلم يا سمد على النبي محمد وعلي ونمد إلهام وكل ذي ترسم يا سبق الخدمة من تقبل الخدمة وتدنسى تخدمة be amonero laqabe mate zaka moy abdi musafa zaka monero arabe zaka sabilu talabe tabibalu saqabe zaka khiyar moy abdi musafa zaka monero arabe zaka sabilu talabe tabibalu saqabe naimada molenada ya رسل دماي ردايا بابل ولا وكرمه تدبي وسلم موي باي فاطمة سكل مكين والمتين سكل مجير والخمير بسا سنة وكرمه ساق ويد والمجيد وهو المبر والليل من بسقامة يقول إلى الجنان من أمان وسلم يا قدير على سير وهو النزير بنعم ونعمة وهو البصير وبرم برخان وهو البصير والنزير سلم بصير كنرايا بنعم ونعمة وهو البصير وبرم برخان وهو البصير والنزير سلم بصير كنرايا بنعم ونعمة وهو البصير وبرم برخان وهو البصير والنزير سلم بصير كنرايا بنعم ونعم بساك رسول راحته وزك رب راحته وزك ذو الفزاحته يا زك رسول ملعمه سلم وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البيت احمدا وليكن بنعمه لجميل السائلين وباتن بتاعنا يا ما يجبك يا هايدان بجاي ولا منا فك يا بلدي أمي أمي على المزمل صلي بكلكم ملالا ما جميل منا على نور

Wakafu ni ñàkkal daal moom mooy Yang menjawab dong.